mujj na nag euh, doon loo xamante ne nii daane nañ euh, Paul Sandaogo Damiba moom colonel bi nga xam ne moo daane woon président bi ci weeru janvier di Roch Marc Christian Kaboré coup d'état ba mu defoon nag euh, ba falu moom lañ ko def ba daal di koy wàccee ñoom ñi nga xam ni nag ñoo nekkoon ci armée bi gënoon koo fare ndaw moom sax jotoon naa wax ni ci su bëccëg ñoom ñooñu ñoo mer nag doonu ko fexeel ñu ànd ci xew-xew bis bi fi mu tàmbalee ba fi mu mujj ñaareelu coup d'état ci euh, lu matul euh, at foofee ca biir réew ma Abdoulaye Diassine Diallo. ab capitaine moo daal di déposé ab euh, colonel fële ca Burkina Faso Ibrahim Traoré lay wuyoo capitaine bi nga xamante ni moo daal di renversé Paul Henri ba ci bopp Burkina Faso daal di jël nguur gi ci loolu nag gouvernement bi dañ ko dissoudre constitution bi ak charte de la transition bi nga xamante ni militaire yu nekkoon ci bopp réew mi ñoo ko fa sampoon dañ leen daal di suspendre ci ab benn déclaration bu ñu lire ci télévision nationale bu Burkina Faso la ñu xamle li ni mel Ibrahima Traoré lu mu xamle tam mooy ab benn groupe militaire maanaam ay soldat ñoo daal di def li ni mel ndax ci seen xalaat colonel bi fa nekkoon di Paul Henri dami ba dafa daal di rek échoué ci xeex bi nga xamante ni Burkina Faso da koy xeex ak ñii di terroristes yi pourtant même motif yooyu ñoo taxoon Henri Sandaogo Damiba ba daadi déposé ci weeru janvier bi ñu gën président de la république ba woon ci Roch Marc Christian moom it nañu jàpp ne xeex boobu moo ko daal faale gannaaw juróom-ñetti weer bu mu toogee ci bopp Burkina Faso. ñoom putschistes yi ci seen euh, bopp nag seen déclaration bi ñu njëkk a def ci télévision nationale ci la ñuy wax ni nag euh, kon euh, daat nañuy tas gouvernement bi dakkal constitution bi fi mu ne nii ba noppi nag tëj frontières yi réew mi jombul fi jotaayu xibaar yi di jeex ñu dëkk leen ñoom seeni kàddu loolee fa xew nan lees ko mën a jàngatee ci euh, doxinu réew ma ak ñaari coup d'état ci lu matul benn at ak euh, jafe-jafe yi ci sous-région bi lawaale ba foofee moom la Mouhamed Jo Diop laaj barka ba lu xew euh, Burkina Faso du mbetteel ci pour ñu doon saytu mbir yi nu mu doxee foofu depuis quelque temps ndaxte lieutenant colonel Damiba depuis bu mu jëlee nguur gi dafa na woon dafa ñëw pour safaral euh, problème yu fa jihadiste yi indi mooy nërmel bu état bi nërmelu waaye dafa mel ni feebar boobu mu buggoon faj dafa dem di gën a law ndaxte tey soo génnee Wagadugu ak euh, lu mel ni booba julaasu feneen presque foo dem ci réew mi jihadistes yi ñoo fa teg euh, seen loxo ba nga xam ne insécurité bi dafa dem di gën a di gën a law euh, lu koy firndeel sax moom mooy ci fan yi ñu génn rek am na benn attaque bu métti bu mét bu méttee métti bu fa jihadistes yi def boom fa ay nit ñu bëri ak ay militaires yu bëri loolu bokk na ci tey lu tax euh, am ay militaires yu génn dañu nërmal nguuram ci yeneen balaa balaa loolu moom président bi jaxle woon